baax a baax bàyyi la yow itam euh, nga nuyoon teg téléspectateurs yi yow Abi prépare-toi davantage léegi ma woo ci biir plateau bi aussi ca yee salaamaaleykum maa ngi nuyu téléspectateurs yëpp yi nga xam ne ñoo ngi seetaan 2STV en ce moment di nuyu di la nuyu sama frère. Kheucha mhm. di gis job na expliqué des fois di nuyu ñi nga xamante ni ñu ngi nekk côté Diourbel sama site di leen shout out bu baax. donc di nuyu la famille tout le monde donc maa ngi kontaan bu baax si teewaay bi c'est vrai que c'est euh, yàgg nañ bëgg a teew may bon ak job bi mais là tout est ok on est là pour faire plaisir aux gens j'espère que mu ngi naan parce que gis naa ne yaa ngi koy assuré suba ba léegi donc kontaan si teewaay bi frère en tout cas le plaisir euh, est partagé ndaxte ñun itam amoon nañu euh, honneur u dalal ko fii ci Parc des Princes mbégte beeg banneex bi dañ koy partagé léegi-léegi ngir mën leen bégal d'abord monsieur Grégoire yeewu xam naa ne naan nga café ndaxte nee nga ma tey Euh, may bi bàyyi ko sama loxo lépp lu ci war rek dinaa ko def xam nga ni man euh, avant may wax ci album bi nga xamante ni actuellement ça déchire ça déchire ça cartonne un peu partout dans le monde ndaxte foo dem fu ne rek euh, ki nga xamante ni macha allah moom moo di jaamaan tube bu mu génnee macha allah sama cat ak sama catu morom gis ngeen ne day def it donc ci it yooyu on va en parler d'abord ak ki nga xam ni moom moo di Grégoire tu vas nous préparer davantage ay vidéos yoo xamante ni ou bien des clips yoo xam ni moom tamit dina lu ci mën a expliquer un petit peu ñu xool. une très belle chanson ki ne xam na ni euh, euh, cette chanson marqué woon na bu baax a baax a baax euh, képp koo xamante ni sénégalais nga foofu nga xamante ni moom moo di ca grand magal de Touba mu doon woy woo xamante ni ça a déchiré jusqu'à présent yow mi nga xam ni yow yaa di jamaan it boo dul génne ci màggal gi boo ko génnewul sax man xëcca bokk naa ci ñi njëkk a posté comme quoi que di wax ana sunu son lan la ni màggale jee lan la oto di demee ja c'est quoi ce projet bi nga xamante ni dëgmal nga ko di ko def ci màggal bàyyi sénégalais di ko xaar ay ati ati at euh, kenn xaaralu woon lii ci àddina artiste boo xam ni bu màggal jotee ñëppay xaar titram est-ce que xam nga euh, projet bi euh, fan la nekk ci yow ak lan moo tax nga indi li ni mel voilà loolu pour wax si ne mooy mbégte la d'abord déjà di sant suñu boroom si loolu parce que lu toll ni màggalu Tuubaa comme ni nga ko waxee donc ñu siy xaar benn single boo xam ne à la base dañ ko defoon juste parce que euh, xamuñu woon ne dina egg si fii donc mu dem ba nekk benn affaire boo xam ne c'est à la à la demande de tous les sénégalais ñëpp di ko xaar ci moment bi nga xamante ni màggal bi day ñëw donc loolu fierté la si ñun déjà euh, soo gisee way yi nag c'est ay morceaux la yoo xamante ni man duma ko boole sax trop si sama répertoire. c'est dama koy def parce que c'est pour faire plaisir aux gens ñi nga xam ne ñu ngi koy demande ñu ngi koy laaj donc euh, benn c'était pas parti pour nekk. chaque année donc. Hmm. après à un moment donné comme ni nga ko mais est-ce que tënku leen un moment donné les Sénégalais demandent chaque fois ana sunu way. wi ni ba màggal. si mais tënk nañu mais positivement parce que comme ni ma la ko rek euh, un artiste. il est là pour plaire il pour faire plaisir aux gens donc mm. su ñu amee benn moment boo xamante ni nit ñi dañuy demander à que ñun ñu defal leen lu leen di bégloo comme ni nga ko waxee lu mm. leen di gunge qui accompagne les pèlerins pour Touba d'autant plus que je suis mouride déjà moi mm. j'habite Diourbel donc ça fait plaisir donc loolu contentement la si am je vois de temps en temps que c'est le morceau bi ñuy def si Magal gi c'est interprété par des personnes qui ne connaissent pas waaye Serigne Touba way na murid kenn lii ay caaxaan et <laughs> dañuy fàtte que ne Serigne Touba si boppam euh, lépp lu am daf ko am ci tagg yonent bi way yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc moom su demee ba toll si auteur boobu ñun tey suñu nekkee ay nit yoo xamante ni ay artistes lañ et ñu jël suñu image di ko rattaché ci al ci ci ci image am pour faire plaisir aux gens ñu si way Serigne Touba di ko booleeg ay message positifs quand euh, bi nga bi ñu jàll léegi nii c'était pour ramener le dialogue islamo-chrétien pour montrer aux chrétiens aussi que Serigne Touba am na fu leen teg parce que bind na ci ñoom fusti donc nekkul rek pour pour faire plaisir aux gens mais c'est pour réorienter tamit nit yi seen mentalité ñu xam fan la lan mooy mouridisme lan la ban ban ban ban ban sagesse moo si am voilà donc tu vois c'est c'est en fait voilà dégg ngeen ko de bons messages à faire passer véritablement ci kili boobu nga xamante ni Grégoire préparé woon na ko davantage déjà moom dafa bëgg chanson bile ndax moom c'est véritablement à déchirer également à cartonner les femmes l'adorent euh, une chanson d'amour boo xamante ni euh, ci diggante ñaari nit ñu doon xuloo la lii wax dëgg yàlla du ma la wax loo xam ni amul te ma ne ci télé euh, am naa problème sama copine mais ba ma contacté yónnee ko ca la ma baal. non sérieusement je te remercie sur ce ma ba xam xam nga loolu. mais dama ma yónnee nekk ko ndaw si ci boppam li ma baal naa la kon nag maa ngi la ciy gërëm man itam pourquoi ces chansons. ah comme nu may wax man j'ai l'habitude de dire man du ma woy mbëggeel en tant que tell directement je chante des problèmes d'amour sans euh, j'ai mis l'accent sur ay problèmes yoo xam ne am na si ay couple et c'est des problèmes yoo xamante ni ay couple mën nañ ko trainer donc euh, ça ça parle d'orgueil ça parle de nit bu joteeg nit xam ne bëgg na ko et xam ne kooku tamit bëgg na ko ku ci nekk di xaar sa morom def premier pas donc c'est c'est bi ma kay way xamoon naa ne dina am impact boobu parce que pas mal de gens vont se retrouver si situation boobu am naa problème nekk nga si kër am problème ak sa jabar ngeen ngeen nekk nii ngeen nekk <laughs> uh-huh. tout à nekk jegente mu tëdd fii nga tëdd fii kenn bëggul def première part pourtant ku nekk bëgg na envie wax ak moromam mais par pur orgueil mooy loolu boo xoolee sama way yi ma way yëpp si ay affaire c'est pas ay wayu love parce que love pour man mooy ngay jël nit comme nii par exemple comme yow laay nobaat. waaw c'est une chanson d'amour mën naa ko wax ne parce que tu da ngay def ay éloge benn xale bu jigéen di ko ah. wax mais ça c'est des problèmes yoo xam ne am na ci ay couple distance ay problème orgueil duma njëkk a wax ak moom damay xaar mu yónnee ma message <laughs> comme tu a fait tu l'as envoyé le le, son et elle était grave a xam ne kii mu ah. ah. la c'est c'est ay yu mel noonu la mu nekk woy boo aussi boo xam ne aussi ça réglait pas mal de couples moi j'ai eu j'ai eu <laughs> j'ai de retours donc en tant qu'artiste suñ demee ba nga xam ne musique bi ñuy def day day boole ay nit c'est ça l'idée en fait sama maam nee na way bu yeewul yee yeetu la yeewu ah, xamal ni du ay way ay naxe mbaay la c'est un c'est c'est un ndax booy dégg ci ay waxam sax da ngay xam ni kii vraiment c'est quelqu'un boo xamante ni il est instruit qui est important dans la vie euh, Grégoire euh, beneen bi ci euh, topp ban lay doon <laughs> style bi bi déjà lan la moom fu ko neex lay euh, waaye moom laay wax barki démb OMG euh, ni que li ma gën a neex ci moom moom mooy dafa am euh, facilité c'est-à-dire et la la rhétorique c'est-à-dire l'art la la facilité de parler moom da ko am waaye kii itam ci style yëpp da ngay di gis da ciy bouger à tout moment man je di dit et je le jaamaan ak ki nga xamante ni moom moo di OMG pour moi ils sont uniques vraiment ils déchirent carrément ci foo leen dugal ci no non non c'est la vérité man je dis que la vérité damay gis damay xool damay déglu parce que aussi quoi qu'on puisse dire je suis un mélomane dama leen di déglu mais seen featuring ñoom ñaar rek non attendez mais lii lan encore ce style bi. c'est euh, style bi afro la afro la donc mu nekkoon bi muy génn c'était euh, tendance la woon ba léegi mu nekk tendance déjà c'est afro la. et ce morceau aussi parle des problèmes d'amour ça parle de jalousie jalousie extrême boo xam ne mën na détruire couple sa téléphone dama koy vérifier fan nga nekk kan mooy wax ci suuf de c'est des trucs très fréquents chez les couples en fait donc euh, mais musique bi afro là que j'avais travaillé avec LSD Record que je salue de passage ñoom Laye Diagne ñu nekk ay maximum si musique ay je le salue aussi yeah yeah c'est ça une très belle chanson Grégoire moom itam fu ko neex lay tëll euh, Gré euh, ma xool lan nga ci teg bu fekkee ni teg nga ko ci ay ci ñu xool très belle chanson qui a fait pleurer beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup de monde moi gis way wi sama yaram dafa daw wax yàlla lan la la inspiré kan moo tax nga way way wile. waa nday nday c'est c'est c'est une histoire vraie que moi je boo xamante ni gisal naa ko sama bopp donc je veux pas trop avancer sur loolu mais. Euh, histoire la bu bu bu am dëgg dëggantaan parce que man comme ni may waxee musique univers la en fait c'est des c'est des tableaux de temps en temps ci li ñuy bind ñun di inspiré wu c'est de tableaux que t'as vécu wala nga romb nit di ko dund et tu essaies de retracer ça dans ta musique man ci sama enfance j'ai traversé pas mal de trucs comme ay nekk si fa kër bu mag et di dit une grande famille dit des problème comme ça hmm. nga nekk si kër di fa sëy euh, am benn benn benn benn genre bët bu la ñenn ñi di xoolee wala benn benn benn répression bu la nit ñi di teg parce que la société boo xoolee ci dafa am benn impact bu muy def si nit ñi mais sa commence par exemple mën na commencer sa biir kër donc nga nekk si kër comme ni ma koy waxee nit gis euh, xool jigéen mu rafet mu takk ko indi ko si këram. problème yi souffrance yi dem ba tey taar boobu noonu boo ko xoolee sax dootoo ko gis si moom. parce que il a perdu tout en fait. de par la souffrance de par ni ko nit ñi di ni ko nit ñi parce que sëy nekkatul si ku jigéen ki ak ku góor ki rek day dem ba nga xamante da ciy bokk ci ñeneen ñi malheureusement am nañ suñu ay yaay yoo xamante tey dem nañ dund dund loolu ba ba jóge am nañ am nañ ay suñu yoo xam dem nañ bàyyi seen ginnaaw njaboot yoo mettit souffrance ñu lay bund xataal nga nekk ci kër amoo fa jàmm sa jëkkër mayu la ko sa ay mbokk jëkkër mayu ñu la ko donc c'est quelque chose qui est très fréquent mu nekk son boo xam ne aussi ñun ñi jàng na ñun ñi jëlee li ma si bëggoon mooy que nit ñi jàng am ci am ci benn leçon de morale bu ñu si tiré donc j'ai été trop attaqué par exemple par pas mal de gens qui m'ont dit waay waroo woon a rey nday ma ne leen man Euh, j'ai voulu j'ai voulu mieux heurter pour parce que xamoon naa ne mënoon naa def son bi mu dund à la fin je suis pas juste benn œuvre d'art en fait mais à un moment donné demoon na ba ba tollu moment boo xam ne c'est comme si nit ñi dañ ko jàppe woon benn réalité je m'en excuse je m'en excuse vraiment parce que jot naa ci ay affaires yoo xamante ni des personnes l'ont pris comme mu nekkoon dëggantaan jaay donc c'est juste de l'œuvre ay benn œuvre daar la boo xam ne créativité la mm. donc man je voulu dire aux gens qui vivent cette situation de ne pas attendre à ce que li dal dal li arrivé nday arrivé leen donc nday pouvait vivre vers la fin mais après est-ce que kon dinañ si mën a tirer benn leçon boo xamante ni moom mooy li nga xamante ni war na ko mën a bañ tu vois c'était ça en fait. en tout cas gis ngeen euh, leçon yi mu ci euh, firim faram-fàcce yëpp euh, yi nekk ci biir ci woy woowu nga xamante ni wax dëgg yàlla dafa dugg ba ci biir kër yi kon nag c'est une très très belle chanson ci yi nga xam ne jot nañ ko wees yoo xam ni bari na sax mais mënu jël lépp en en grosso modo dañuy dagg ci yi nga xamante ni wax dëgg yàlla yàgg na ko bégale Sénégalais yi ñëw nag ci album bi nga xam ni sa déchire ça cartonne mais pour l'album je vais inviter Euh, ñu euh, partagé euh, plateau bi ak man ci wàllu album bi nga xamante ni actuellement ça déchire ça cartonne un peu partout moom animu nii lay def dafa yéex ay mbiram dafa yéex donc bu fekkee ne yegg si na rek gërë ñu ñëw ak moom d'abord ñu bàyyi la nga wax nu Grégoire foo ne nii ah lii man du ñoom toppandoo ma yóbbe ma bàyyi sama yoon fa laa jiitaloon àdduna ma xaataloon ku may digal lu ma def la suma noon ah. weddi li ma doon fa ma jóge hop hop hop hop une très très belle chanson également way wi nga xamante ni euh, euh, Diamane way na ko sa a a cartonné aussi abi dama lay bàyyi nga nuyonteeg téléspectateurs yi euh, indil ma sama verre nii balaa nga koy yóbbu go nekk Medina nga da doy waar ma bàyyi la nga nuyonteeg sama invité du jour. alors salaamaaleykum chers amis téléspectateurs yi nga xamante ñoo safoo seen émission bi di 11 13 aussi seen télé 2 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen wax comme à chaque li nga xamante ne moo di thème dañuy waxtaan ak ki nga xam ne mooy suñu invité balaa dara ma nuyu ko ne ko jaman noo def. man tey du ma wax ak yow ci dara tey maa dul wax ak yow ci dara. Aïcha <laughs> nuyu nga Jaman moom itam mi ngi lay fay nous allons à peine euh, présenter euh, l'album de euh, Jaman déjà xaaral ma teg ko nii yow itam nga mën a gis titre yi ci nekk l'album s'appelle Abio ma bàyyi la nga laaj ko d'abord ci titre bi le pourquoi mu choisir nom bi ni mel alors euh, Jaman euh, Abio ça parle de quoi c'est quoi Abio en fait. waaw ouais, bon Abio c'est c'est Abigay en fait c'est c'est ma sama sama maam moo tudd. sama maam moo tudd grand sama maam moo tudd Abigay. donc maa ngi koy ñaanal fi mu tëdd. Hmm. yàlla mu def mu gënal ko fii. Hmm. donc moom dans son vie euh, vivant daf ma mës a wax ne ma man sama maam moo ma yar en fait. ndeysaan donc euh, c'est vrai que ma maman est en mais man sama maam sama dama gënoon attaché voilà ndeysaan léegi nag euh, mu ne ma man fil foo nga way ma ma dégg ko man bugguma comme ni ngeen ma dem nga may way damay dégg sama way comme ça ma xam lan laa si soo amee lu ma si war a rectifier ma rectifier ko ndeysaan après je suis à Dakar comme moom dafa buggoon musique reggae j'ai fait un son qui s'appelle Abio Heureusement pour moi, et elle l'a écouté. Après, un mois après, eh, benn tabaski elle est tombée malade. oh là là mais mu après si la gaañu. donc elle m'a elle offert à ci moment yooyu ça doit faire presque maintenant léegi six ans. ndeysaan. donc Abigay sama maam mu mu mu mu ne mu ne famille bi il faut ñu may ñu jox euh, laxaat xaalis. ndeysaan ñu jox ma xaalis bi mu ne nañ ko ko jox directement. ñu jox ko ko <laughs> doomam yi ko mu jox ma si 5000. donc des des 5000 que j'ai jamais voulu dépenser que j'ai gardé à la maison. après un mois après elle est décédée. donc oh là là. 7 euh, 8 ans après que j'ai quand j'ai décidé de sortir mon, mon premier album solo ma tuddee ko ko en fait elle m'avait demandé euh, juste un morceau. <laughs> mais mon album porte son nom maintenant. voilà.

c'est comme genre give thanks. Okay. comme remerciement la ci en euh, entre doomu aadama ak nit bi. que le peu le mm. peu te suffire donc doomu aadama bi mun na yeewu rek soo yeewoo soo soo tëddee ba nelaw ba yeewu rek. pour man merci nga war a sant yàlla parce que mën nga yeewu nekk ci position boo xamante ni am na ñu bëri ci moment bi nga yeewoo beaucoup son partis beaucoup son dans des sur des lits d'hôpital en train de souffrir am na ñu nekk ci am na ñu nekk ci ay problème ci moment bi nga yeewu noonu am na ñoo xamante ni ñu ngi derrière les barreaux am na ñoo xamante ni ils ont ils ont des problèmes am na ñoo xam ne ils viennent juste de sortir de l'hôpital